wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida laqin lisaani waxlulan minhu loqad wajalhu shakiran wa zakiran abad mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu àq te di leen baal di leen jaajëfal ci topp gi nga xam ne moom ngeen di topp euh, jataay yi nga xam ne moom la ñuy ànd ak yéen euh, di ko toxale ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu joyal bind yooyu jëmale ko ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde Nahju Qadaa'il Haaj ñu ci doon ànd ak yéen ci jataay weesu waaye sunu jataay bi mujj mi ngi mel ni ñi ngi taxawoon ci fi nga xam ne fi la sëriñ bi radiyallahu anhu di dénke taalube bi nga xam ne mooy sàkku xam-xam ni nga xam ne noon la war a melowoo ci kanam ab sëriñam waaye teggiin yi nga xam ne war na ko bàyyi xel su bëggee jariñu ci xam-xam ba nga xam ne moom lay sàkku waaye su bëggee am lu ko doy ca xam-xam ba nga xam ne moom lay sàkku mu mel ni fi ñu mujj a taxaw mooy fi sëriñ bi di saraaye bayit yi nga xam ne ci la doon dénke taalube bi ni nga xam ne noonu la war a melowoo ci kanam ab sëriñam teggiin ya nga xam ne moom la war a jëfandikoo mu mel ni lépp loo xam ne mooy ampo wala lépp loo xam ne mooy coow yooyu yëpp daf ko war a moytandiku ci kanam ab sëriñam waaye it war naa wormaal ab sëriñam bañ koo jàppe ab àndandoo lu mu yàgg-yàgg am moom ak moom war na ko bàyyi xel war na ko wormaal bu baax a baax a baax a baax waaye lépp loo xam ne moom la ko ab sëriñam digal te muy dëppoo ak ndigalal suñu borom bi subhanahu wa taala war naa dox kem kàttanam jëm ca doonte ne la ko sëriñam di digal sax digalul yàlla la te bakkanam bañ ko sax war naa xeex ak moom ba jëfe ndigal loolee kon ci sara boobu la taxawoon suñu bindub tey nag day continuer rek di waxaat ba tey ci li nga xam ne mooy teggin yooyu nga xam ne moom lañu ñu war a jëfandikoo ci suñu diggante ak suñu sëriñ bi nga xam ne moo jàngal li nga xam ne mooy xam sëriñ bi di wéy rek di wax ne wala tasal bul deñ za ihda in di boromuk ilayhi jëm ca jëm ca sa sëriñ boobe lahoo di ko ñeel bi mastataata ci lépp loo xam ne man nga ko min atain ci ay may walaw xalilan doonte ne lu niiw la limti saalima ngir jëfandikoo ndigal la nga xam ne warada rot na min annaha ci naka loole muy joxe addiya sab sëriñ taziidu day dolli xubba man cofeelu ka nga xam ne yawaddu dana sopp nee na sab sëriñ day bul deñ mukk di jël ay addiya di ko jox bul deñ mukk di ko liggéeyal bul xeeb dara ci lu baax loo xam ne mën nga koo defal sab sëriñ ngir defal googu nga koy defal loolee day day dolli ak cofeel sa diggante ak sab sëriñ waaye day dolli ak mbëggeel day dolli li nga xam ne mooy ak yërmande waaye day dolli uh, ab diggante bu rotax bu baax a baax sa diggante ak sa sëriñ ne na wama ak lépp loo xam ne raaytahu gis nga ko lahoo di ko ñeer fii amrin ci mbir yamiilu bob dana jeng kun na nga nekk li zaaka ca loole zaata xarrin di borom nattale nena mépp mbir moo xam ne gis nga sab sëriñ di ko jëf te muy jëf joo xam ne ju baax la nee na na ngay di nattale jëf jooja di ko ca jiimaroy waaye bul yaafuus mukk waaye lépp loo xam ne gis nga sa sëriñ di ko def ci jëf muy jëf ju baax na nga jiima jeng jëm ca loola na nga jiima nattale jëf ja nga xam ne moom lay jëf ci lu baax nga nga ko cay roy di ko toppandoo mu ne waccaxi dan na na nga farlu baax bu ginnaaw loolee fii isaalihi ca jokkale ko fa na xosnal fi'ali ndaka rafetul jëf de fii mang ca matale ga nee na boo defee loolu ba pare na nga góorlu sa kem kattan ci fexey di jokkale loole nga xam ne moom ngay gis ci sab sëriñ mu koy jëf nga koy jokkale ak say jëf di ko fexey di ko rafetal ngir ne jëf ju rafet dëgg-dëgg day ca mat ga rek lañ koy xame jëf day lépp loo xam ne nit kaa koy jëf te Euh, matalew ko daanaka loole mën nañ caa bañ a séentu njariñ dëgg-dëgg kon lépp loo xam ne gis nga sab sëriñ ci mbir mu mbir mu moo xam ne nekk na ca di ko def muy mbir mu baax nga gis ko mu jeng di ca jëm na nga fexey di nattale mbir moomee di ko fexey di ko ca roy waaye na nga ca góorgóorlu bu baax a baax ngir di ko jokkale di ko jotal ñi nga xam ne ñoom ñoom war nañ ko mën a jëfee war nañ ko mën a jot te ngay ji ma say jëf bu baax a baax a baax waaye booy rafetal say jëf nga jëm di ko def muy doon jëf yoo xam ne jëf yu mat a mat la moo xam ak jaamu yàlla la moo xam jëf yu baax ju man di doon mu ne wakun na nga nekk euh, taxal euh, li kulli man ñeel képp ka nga xam ne taxallaqa ajuna bihi ci sab sëriñ ahlan moo xam waa la abidan wala muy ay jaamam wa siwaahum ak ñeneen ñu dul ñoom mutlaqan ci ak boy muxtariman di aji wormaal euh, muxtariman di aji wormaal xay na kon lakka mu ñeel la ya juudu dana tabe bi nasratin ci ab xool boo xam ne tanaalu danga nga amee bihaa ca xool boobee maa turidu la nga xam ne moom nga bëgg euh, nee na nga nekk di wormaal képp koo xam ne moo jokk ci sa sëriñ moo xam ñi nga xam ne waa këram lañ moo xam ñi nga xam ne ay jaam lañ moo xam képp koo xam ne jokk na ci sa sëriñ daal ne na bul deñ mukk di ko wormaal ndax loole mën naa am sëriñ ba gendeku la ca ba xool la ca xool boo xam ne cala la sa euh, ca sa aajo di fajoo wala waaye ca sa cala la say mbir di baaxe moo tax ba tey mën nañoo wax ne wakun na nga nekk muxtariman di aji warmaal li kulli man ñeel képp ka xam ne taallaqa aju na bihi ci moom sab sëriñ ahlan moo xam mu di waa këram abidan wala muy ay jaamam wa siwaahum wala ñeneen ñu dul ñoom mutlaxan ci ak boy laallahu kon xëy na yajuudu mu tabe lakka ñeel la bi nasratin ci ab xool boo xam ne tanaalu danga nga amee bihaa ci moom maaturidu la nga sopp ak la nga xam ne moom ngay mébét kon nee na na nga fexey ba sab sëriñ bul ko xeebal dara ñi nga xam ne ñooy waa këram loo man ci lu baax na nga leen ko defal sab sëriñ bu fekkoon ne dafa yor aw dàll sax dàll wa nga koy jël di ko fompal sax loolee bu ko ca xeeb ndax loola sëriñ ba mën na caa euh, bég mën na caa kontaan ba xool la xool boo xam ne euh, ñaanal la ci ñaan boo xam ne ca la sa mbir di euh, defaroo moo tax mu ne bi nasratin ci ab xool yuxniika dana la doyloo mawlaaka sax uh, kilifa bihaa ci moom an kasratil kaddi walif bari ay coono fakkun nekk nga nekk muntabihan di aji yeew ne na ab xool dong boo xam ne sa kilifa xool nala ko te xool ba mu yéene la ca aw yiw xool ba mu yéene la ca jàmm ne na xool booba dong de mën na laa fegal lépp loo xam ne mooy coona kon sab sëriñ fexeyal ba di am ci moom xool yu mel noonu nga xam ne bu lay xool da lay xool ngir xoolub cofeel da lay xool ngir xoolub yërmande waaye da lay xool ngir bëgg laa jariñ moo tax mu ne fa nazratul xubbi xoolub cofeel mina shayxi boo xam ne dafa tukkee ci ab sëriñ ilaa muridihi jëm ci ab taalibeem di am ndongoom hiya moom almazaya mooy mayya walxulaa te moo di ak kawe nee na xool bi nga xam ne moom la la sëb sëriñ di xool day xool bi nga xam ne moom la sa ab sëriñ di xool ab taalubeem xool bi nga xam ne moom la ab sëriñ di xool ndonga li nga xam ne moo sukk ci kanamam di jàng ci moom ak euh, jëfandikoo li nga xam ne mooy ay teggiin wormaal ko bàyyi ko xel bu baax a baax nee na xool bi nga xam ne moom la ko ab sëriñ di ab sëriñam di xool de loola dong mën na koo may ay may yu màgg a màgg màgg waaye mën na koo defal ak kawe bu kawe kawe kawe moo tax mu ne wa kun na nga nekk la da shayqi fasab sëriñ ka may yitin ni ki ab néew wadiaa bopp teg nañ ko bay na yaday xaasilihi ci diggante aji sangam tantafia kon da nga jariñ kon danga nga jariñ nee na na nga nekk ci sa kanam ab sëriñ de soo toogee ci sa kanam ab sëriñ na mel ni ab niiw boo xam ne dañ koo teg ngir bëgg koo sang nga xam ne ki nga xam ne moo ko teg ci kanamam bëgg koo sang fépp foo xam ne fa la ko awale rek moom amut lum ciy taamu ndax mënalu tut boppam dara léppam da ko jël jébbal ko ki nga xam ne moo koy sang fu mu ko wëlbati awale foofa la koy lay lay aw kon yow tamit na nga jëfandikoo noonu ci sa kanam ab sëriñ bàyyi ko xel bu baax a baax ba lépp loo xam ne moom la la digal bul ca xool lu neex ci sa bakkan wala lu naqari bu dëppoo ak lu suñ borom bi subhanahu wa bëgg rek digal loola na ko jëfee waaye na nga def sa kem kàttan ngir loolee ca ngay mën a jariñoo nee na wa intakun donte nekkut donte nekk na lil ilmi ñeel xam-xam za taallumin boromu xamlu fabtaxi na nga sàkku lillahi ñeel yàlla ridal muallimi ngërëmul jàngalekat ba nee na euh, su fekkee ne da xamlu xam lu day na nga fexey ba sàkku gërëmal ki nga xam ne moom lay moom la moom moo lay xamal moo tax mu ne wa intakum su fekkee ne da ngaa nekk za taallumin di borom xamlu lil ilmi ñeel xam-xam fabtaxi nanga nga sàkku euh, lillahi ñeel yàlla ridal muallimi ngërëmul jàngalekat ba nee na sooy sàkku xam-xam de na nga fexey ba ki nga xam ne moo lay jàngal ki nga xam ne mooy def ci yow xam-xam na nga fexey ba sàkku ngërëmam ngir ngërëmam soo ko sàkkoo ba am ko euh, yàlla mën naa dogal nga jaare ci am xam waaye yàlla mën naa dogal boo amee xam nga mën a jariñoo xam-xam nga xam ne moom nga am kon sàkku ndigal njëri euh, ngërëmul ki nga xam ne moo lay jàngal wala sàkku ngërëmul sëriñ bi nga xam ne moom nga sukk ci kanam di sàkku xam-xam nee na euh, loolu nit ki mën na cee jaare am bu baax a baax euh, li nga xam ne mooy tawféex mën na cee jaare am njariñ ci li nga xam ne mooy xam-xam ba nga xam ne euh, moom ngay sàkku moo tax mu ne wakun na nga nekk la daa cheyqika fi sa kanamub sëriñ kal mamluuki niki kuñu moom tablugu kon da nga jot bihi ca moom darajatal muluuki martabaay ñi nga xam ne ñooy buur ya maanaam jotal muluki mooy euh, kawe ga nga xam ne moom la buur ya kawe nee na su fekkee ne bëgg nga jot li nga xam ne mooy dayital bi nga xam ne moom la almuluk amee muy buur ya nee na soo toogee ci sa kanam sëb sëriñ na nga fexey ba nekk mel ni ku ñu moom koo xam ne fu ñu la awale foofa ngay aw doo tànn fenn foo xam ne fa ngay awal sa bopp kon loolu li muy tegtale mooy nit ki su toogee ci kanam ab sëriñam di sàkku xam-xam amul lenn lu ko war a fëkk loo xam ne mooy tax mu wóote ak teggiin yi nga xam ne moom lañ digle waaye lépp loo xam ne mooy ay teggiin war na koo jiima jëfe ci kanam ab sëriñam war naa toroxlu ci kanam ab sëriñam waaye war na koo bàyyi xel war na ko respecté waaye war na koo wormaal lépp loo xam ne mooy ay teggin ci digganteem ak moom mu koy jëfe moo tax mu ne waalam na nga xam bi anna nafa naka jariñu laa yunaalu deefu ko amee illa bi ijlalin ndare ci ak màggal sëb sëriñ alaamaa ca la nga xam ne xaalu wax nañ ko ne na nga xam ne day ki nga xam ne mooy sàkku xam-xam de bëgg caa jariñu na xam ne njariñ loolu du am mukk li feek màggalut ab sëriñam li feek jëlut ab sëriñam teg ko ca kaw li feek jëlut ab sëriñam def ko muy kilifam ne na nit koo xam ne da ngay sàkku xam-xam te tegoo foofu sob sëriñ na nga xam ne xam-xam ba ngay sàkku doon ne am nga ko tamit mën na laa bañ a bañ a jariñ kon fa ngay mujj rek mooy da ngay mel ni mbaam musa bi téere am xam-xam bu ne gàññ waaye doo ci jariñoo dara te loolu yàlla nañu suñ borom subhanahu wa taala musal moo tax mu ne bi xadri ijlaalika ci kem sak màggal sayxaka sab sëriñ tafuusu ngay tuufoo ci ngay amee li nga xam ne moom ngay wut Euh, bi maa ca nga xam ne turiidu bëgg nga euh, turiidu bëgg nga wa bihi te ca loolee taxuusu ca ngay làqe al yum na muy xéewal nee na ci kem li nga xam ne noonu ngay màggale sëf sëriñ day ci ngay amee ci xam-xam li nga xam ne moom nga bëgg waaye ci ngay jariñoo ci xam-xam ci kem njariñ la nga xam ne moom nga ci bëgg jariñoo kon su fekkee ne bëgg ngaa am xéewal bëgg ngaa am njariñul xam-xam bëgg nga xam-xam bi ngay sàkk mu jariñ la bëgg nga am xam-xam boo xam ne bu suñu borom bi subhanahu wa gërëm la fexeyal ngay màggal sëb sëriñ waaye fexeyal nga koy bàyyi xel euh, fexeyal nga koy wormaal fexeyal nga koy addiyal fexeyal nga koy liggéeyal lépp loo xam ne mooy teggin yoo xam ne dafa dox sa diggante ak moom nga koy sàmmonte bu baax a baax a baax moo tax mu ne fa kullu man képp ko nga xam ne lam yurdi gërëmut cheyqahu ab sëriñam fala lu du am fii tilmisihi ca ab dongam maa la nga xam ne amala mébét na ko ne na képp koo xam ne day sàggane nga sab sëriñ ba fexe yow ba sàkku ngërëmam ba am ngërëmam mu kontaan ci yow am mbégte ci yow ba yiwi la nga dem ne na saa boo amee ay donga na nga xam ne lépp loo xam ne moom nga cay mébét na nga xam ne loole mën naa gàntal ngir lan ngir nga doon jëflante ak sab sëriñ moo tax loolee gàntal kon boo bëggee bu ëllëgee boo yoree ay donga ñu nungul la boo bëggee bu ëllëgee boo yoree ay donga ñu euh, wormaal la boo bëggee bu ëllëgee boo yoree ay donga ñu euh, jëflante ak yow ci ay teggiin ne na kon jamono ja ngay sàkkoo xam-xam na nga bàyyi sa xel sa xel sa sëriñ bu baax a baax wormaal ko euh, jox ko ay teggiin yi nga xam ne moom la yelloo waaye bàyyi ko xel bu baax a baax a baax ngir mu man laa gërëm ndax bu la gërëmee ëllëg donga boo yor man naa euh, euh, topp say waaw waaye mën na laa wormaal ngir ne li nga lebre rek moom lan lay moom lan lay fay kon boo bëggee bu ëllëgee boo yoree donga mu déglu la bàyyi la xel topp say waaw booy jàng na nga fexey nga bàyyi xel sa sëriñ waaye nga fexey sàkku ngërëmul sa sëriñ ngir ne bu la sa sëriñ gërëmee bu ëllëgee boo yoree ay donga ñu mën a topp ci say ci say tànk moo tax mu ne bal li fi ne kay rubba saxsin bariwaana waay joo xam ne yoolinu ma ngay biral ma ngay yëkkati bilonlumi ca xam-xam wala yenaalu te du am man ka nga xam ne yarkanu dana wéeru ilayhi ca moom nee na bariwaana waa joo xam ne day ma nga ma ngay wax bu baax a baax naa man mii de li ma yor ci ab xam-xam fu ne mu taxaw fa di wax li mu yor ci ab xam-xam te du gis kenn koo xam ne moo koy laaj wala du gis kenn koo xam ne mooy ñëw ci moom di sàkku se xam-xam loolu bariwaana la koy waral mooy ñàkkaana jox ab cër sëb sëriñ ñàkkaana wormaal sëb sëriñ waaye ñàkkan koo euh, sedd teggin yi nga xam ne moo yell sa diggante ak moom nee na képp koo xam ne noonu nga jëfee boobaa loo bari bari ab xam-xam boo demee ba toll ci war a jàngal nit ñi booy wax sax nit ñi duñ la duñ la déglu loolu nag la koy waral mooy ñàkkee kersa sab sëriñ waaye bañ a wormaal sab sëriñ waaye bañ a euh, jëflante ak sab sëriñ teggi ni nga xam ne moo war sa diggante ak moom moo tax mu ne bal li fi nekkay rubba sax sin bari waana waay yoo xam ne yoolinu ma ngay biral bil ci ay xam-xam di wax xam-xam yu bari yu mu amee wala yanaalu te du am man ka nga xam ne yarkanu dana wéeru wala dana ñëw ci moom sukk ci kanamam euh, di sàkku si la nga xam ne mooy xam-xam moo tax mu ne wala yenaalu du am man ka nga xam ne yarkanu dana euh, sukk wala muy wéeru ilayhi jëm ca moom ngir lan ngir sàkku si xam-xam bari waana waaju mel noonu nga xam ne mu ngay mébét di wax xam-xamam fu mu toll te nit ñi gisuñu ko bàyyi bàyyiwuñu ko xel loolu la koy waral mooy ñàkki kersa sa sëriñ kon Euh, moo tax mu ne aazana yal na musal ñu allahu yàlla wa iyaakum ak yéen maan mboole seen min kulli euh, min kulli ilmin ci bépp xam-xam boo xam ne lam yan faa jariñu aaliman aji xam ko moo tax kon mu ne yal na nu suñu borom subhanahu wa taala ci bépp xam-xam boo xam ne nit ki da koy sàkku ba pare te xam-xam ba jariñu ko dara kon loolu yal nañu suñ borom subhanahu wa taala musal musal leen ci yéen ñëpp kon ñi ngi ñaan suñ borom defal ñu xam-xam boo xam ne dinañu jariñ waaye it suñu borom defal ñu ay teggiin ba saa bu ñuy sàkku xam-xam ñu warmaal ci ki nga xam ne moom lañ koy sàkkoo ngir suñ ko amee mu man ñoo jariñ kon ñi ngi tuub bu baax te jégglu di wax ne in uridu illa al islaaha ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu lépp loo xam ne jub na ci ci ndimbalal suñu boroom la lu ci dëng ngeen jéggal ñu ko te xam ne jaam bu matadi moo ko doon def wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin ala sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi wa samawati على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey